mbàkkee lu la neex lu la neex laaj ci sëriñ Saliou lu la sa baay ci sëriñ Saliou sëriñ ay mbàkkee ku la sopp daal di gën kookoy sëriñ Saliou ku la jooxi daa mu dem jinaana. ci Serigne Saliou Serigne Saliou Mbacké yaa xew. ci Serigne Saliou Mbacké bu ëllëgee ba bu ëllëgee ba bu ëllëgee ba bu ëllëgee ba bu ba bu ëllëgee ba bu ay Mbakke ñun ñëpp ñu demal jara Sëriñ Salim Mbakke yaay waaja Sëriñ Salim Mbakke yaa waajal waaja ay baayu Seex Mustafaa Saaliw Sëriñ Salim